bari Bargny di ab dëkk bu nekk ci departement bu Tëngéej digganteem ak Ndakaaru toll ci fanweeri ak juróom activité bi gën a fës ci dëkk bi moom mooy napp gi ndax géej gi mu am fii am na ab bërëb bu ñuy woowee Xelkom ay soxna di fi daanee seen doole ca la yëngu nag mooy di soppi ay jën def ko keccax wala géej gi ngir askan wi mën koo jëfandikoo waat ci beneen anam wante lu xaw a yàgg tuuti ay usine yuy ànd yàqute ci ngelaw gu neex a noyyi gi maanaam pollution samp nañu ko fii askan wi di ko mettitlu saa su ne. métti di boo koy wax du rek lu ñuy tënk ndax bu ñu ne Bargny soixante-dix moo fi nekk ñu jël à l'ouest usine ciment nekk fa si kaw ñu ne pôle urbain de Diamniadio nekk fa à l'est ñu jël poor port minéralier Ifraki boobu doon na 480 hectares pour euh, Diamniadio bi nekk 1600 hectares Sococim denc 400 et euh, quelques hectares pour le siècle à pour mu am calcaire géej gi mu ngi def li mu mën le port minéralier mu ngi fi la centrale mu ngi fi la zone économie spéciale mu ngi fi te loolu yëpp boo ko boolee ay établissement classé ñoo fi nekk yii yile usine di liggéey saa su ne te itam di yàbbi saxaar wala pënd gu bare bari askan wi di ko dundee nu ne seen wér-gi-yaram di ko yëg bu baax a baax ci ay gàllankoor. ndax noonu waa bax ñu rek ñu war a croiser les bras toog di xaar ñu déeb à petit feu parce que li ñuy wax ne toujours lii day rey du koy xëy xëy xëy rey la mais dina la feebar ngay maigrir. maa ngay ngay ngay ngay am ay ay ay euh, feebar yu nga xamante ne day lekk sa deret di lekk sa xol di lekk sa lépp ndànk-ndànk ba da ngay xëy lii ñu fi euh, seetlu si ay mort subite kenn xamul nan la toll neewuñu nag moom la waaye xam nañ ne am nañ soupçon si ne lii bar ñi li ko wër moo yàq suñu yaram boo demee fu mel ni njolmaan la fa nekk si ay maladie kenn xamul nu mu toll boo demee fu mel ni minam la fa nekk si ay maladie kenn xamul nu mu toll nun ñii les femmes transformatrices léegi Seynou naxat dañu boole suuf si ñuy jël boole ay charbon bu ñu ñuy xëpp boole cendre bu ñu ñuy xëpp boole seen eaux usées yu dugg si ñun di yàq suñu suñu xaalis yëpp boole cheminée ba nga xamante ne fu mu toll mu ngi génn tooke ji nga xam ne kenn xamul fan lay mujje ak waa Bargny. yi lay xeetu métit askan wi di ko dund bés bu yàlla sàkk fii ci diwaanu Bargny tax ba député bi di Guy Marius Sagna doon itam activiste ñëwoon ngir nemmeeku leen waaye itam déglu seeni joytu mu doon lu mat waxtaane ndax la muy jur ci xeetu jafe-jafe ci doomu aadama yi. Assemblée nationale moo ñëw fii tey euh, wuyu si nemmeeku si euh, suñu euh, yaay. yi nga xam ne euh, ñooy liggéey euh, fii euh, ci Bargny nekk ci groupement Xelcom di jël lépp li jóge ci géej gi di ci def ay keccax ay géej ay yéet ak ñoom seen muy liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi ko fiy def ay atoog at di ci dundal seen njaboot di si suturlu di si dundal ay doomu Sénégal ndaxte defe naa ne que fépp ci Sénégal keccax mu ngi fay dem fépp ci Sénégal géej mu ngi fay dem képp ki nga xam ne yaa ngi lekk gejj keccax ak ñoom seen xamal ne euh, bokk na ci gejj ak keccax ak yéen bi ngay lekk euh, fii lañ ko defaree euh, fii ci baat ñi ñu ñëwoon fi nag déglu leen déglu seen tawat déglu seen métit te li leen métti bokk na ci bâtiment bi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw muy centrale à charbon bi nga xam ne dañ ko fi sanc te waru fi yoon nekk ndaxte bi mu fi ñëwee du désert la fi fekk centrale à charbon bi bi mu fi ñëwee daf fi fekk ay jigéen daf fi fekk ay dëkkuwaay daf fi fekk ay école daf fi fekk ay cases des daf fi fekk jàmbaar yi nga xam ne mooy les femmes transformatrices yi nga xam ne ñooy jël jën di si def gejj euh, yéet ak keccax ak ñoom seen donc centrale à charbon bii bu dee ay kilifa yoo xam ne mat nañ kilifa waru fi woon taxaw ndaxte kat ci benn gox ñu ne benn Sococim ñu ne ñaar pôle urbain de Diamniadio ñu ne ñett pôle euh, Euh, port miné minéralier et vraquier ñu naan déet ñu ne yi ñu naan déet euh, ñu ne zone économique spéciale ñu naan déet ñu ne centrale à charbon ñu naan déet ñu ne sax ñaareelu cimento yi dinañ ko fi taxawal wax dëgg yàlla war nañ xoolaat lii war nañ déglu yuuxu waa Bargny war nañ déglu tawatu waa Bargny xale yi ñu ngi feebar feebaru noy yi mu ngi leen di ngëpp gannaaw yi la kàddu ba woo ci ndaw réew mi askan wi ne am nañu yaakaar ci nguur gu bees gi ngir mu saafara seeni jafe-jafe li ñu bëgg nag bokk na ci jële fi usine yi di yàq seen nekkin wante itam suufu Bargny gi yenn kilifa yi jàpp di caxat caxatee nu mu leen neexee. donc il est temps que Bargny comme yàlla def na mu am nguur gu bees nu am yaakaar si moom te mooy li ñuy wax rek Bargny ñàkk nañu caaxaan ñàkk caaxaan nga nga xamante ne lépp luñ ne dañ ñu ko faj. duñ ñu ko faj mhm. bu jëkkoon de boo nëb lébu mu ne na bu la tey ma dee tey jooju du fanaan mhm. te xalaat na ne mu ngi commencé di feeñ ndax maire bi passé bi ñu ko ne déet ba sonn mu tënkam lu ne moom buur la cinq ans cinq ans lañ ko fi bàyyi barñee ko buub dem sànni mhm. Macky Sall bi mu fi nekkee ñëpp naan déedéet mu wane ne moom barñi pour vous dire bi muy delloo élection yi trois jours après samedi la delloo élection yi dimanche lundi moom la waroon a ñëw le port yi et vraquier mais booba xam ne ne comme waa bari ñu ngi taxaw mu la ñëw port boobu jour boobu bato jëkk na fi teer wàcce marchandise am ba tey fii ñuy waxante ak yéen po euh, bato egsiwaatu si bon mooy yi gëlëmal nit yi wane ne maa yi liggéey li si seen bilan lañ ko doon de mais defe naa bu doon bilan moo ko doon téye ma xam ne doon na toog mais bilan boo nga xam ne dafa àndax tàngaayu xolu doomu aadama fa mu lay jëmee kenn du ko xam te mooy lii xew ba élection yi jotee aussi waa bat ñi wane nañ seen bopp waxuñu tëgguñu tàccuwuñu waaye ba génn ko jotee génn nañu ko génneen bu rafet ba ñëpp di laajte ni ñuy wax bari ñi donc noonu lii suñu problème mooy képp ku ñu dimbali te yàlla tax ndax fi mu nekk foofu rek lañ toll comme gouvernement bu bees la nañu ñaan yàlla lii waa ban ñi doon jaay jooy ñu fajal leen seen soxla mooy lan li fi nekk si ay industrie surtout la centrale à charbon mooy suñu premier problème centrale à charbon bi na fi jog mën naa ne ndax bi ñu ko fiy andi dañu ko démonter si dëkk andi ko Bargny bon bu waa Bargny ne bëggunu war nañu ko mën a démonter si Bargny yóbbu ko faneen ndax Bargny rek moo fi am suuf ba lépp lu bon ñu ne nañ ko yóbbu Bargny benn usine bu baax amul Bargny amu fi benn usine bu baax amul Bargny usine yi fi nekk yëpp yuy uh, faagaagal doomu aadama la ba tax na nag lépp luñ si man din ñu ko def ndax depuis mil 2008 ñu ngi ànd ak ñu ñu war a àndal di ko xeex surtout les femmes transformatrices. combat bu fi am ñoo ngi taxaw au devant de la scène di wane ne ku ne laa noot uh, deewug béy lañ koy def di ko rey waaye dina wéqu yuuxu ba ñëpp xam ne yaa ngi ko doon rey te noonu foofu la ñu tolloo ak ak ak l' état du Sénégal. yi la joytu askanu Bargny dinañu yegg ci njiitum réew mi ci kàddu Guy Marius Sagna. moom député bi dàkkul sax ba jébbal pencum ndew réew mi ab bataaxal ngir ñu ubbi ab commission d'enquête parlementaire lépp rek jëm ci ana lan moo sabab sampuk central à charbon bi fii ci diwaanu Bargny wante itam suuf si nga xamante ne ñu ngi koy jàpp di pàccoo ci anam bu jaarut yoon. incha allah euh, fan yii di ñëw gouvernement bi Sénégal dina dégg euh, seen yuuxu dina dégg seen naxar euh, yàlla ak askan wi def nañ ñu am président bu bees ak gouvernement bu bees. président bu woote jub jubal ak jubanti waa Bargny nag soxla nañu jub jubal ak jubanti femme transformatrice yi nga xam ne ñoo nekk fii soxla nañ euh, centrale à charbon bi ñu jubal ko ñu jubbanti ko soxla nañ itam lépp li nga xam ne teg nañ ko ci loosu waa Bargny ci loosu waa Tëngéej ah ñu xool naka lañ koy jubbantiwee ma bëggoon nag euh, yow gouvernement du Sénégal nga wax ma lan moo tax euh, centrale à charbon Euh, mi nga xam ne euh, diggante wam ak dëkkuwaay yu gën a jege gën saa néew war na mot euh, juróom téeméeri mètre lan moo tax mu sës rëkk ci suñu yaay yi nga xam ne ñooy liggéey fii lu tax mu sës rëkk ci école yi fi nekk lu tax mu sës rëkk ci case des tout-petits lu tax mu sës rëkk ci dëkkuwaay yi ngi fi yi nga xam ne ñu ngi fi waaye itam gis suuf bi nga xam ne ñu ngi koy caxat caxatee d' accord di ko nangu ci loxo béykatu Bargny di ko nangu ci loxo femme transformatrice yi di ko nangu ci loxo ñi nga xam ne ñoo yeewoo fii ci ñi te amutuñu sax suuf bu doy pour tabax fa kër pour mun dund fa dund bu mucc ayib. question écrite yi euh, yi nga yi nga xam ne nag naa ko déposé euh, waxtu yi di ñëw bu doyulee euh, dinañ déposé li ñuy woowee commission d' enquête mais parlementaire pour wax ne commission d' enquête parlementaire du rek pour élection. commission d' enquête parlementaire du rek pour ay politiciens commission d' parlementaire mooy itam mooy d' abord pour askan wi xool lan moo tax ñu jël lépp teg ko ci kaw loosu Bargny zone économique spéciale centrale à charbon Sococim deuxième cimenterie pôle minéralier et vraquier ak ñoom seen Toshiali euh, pôle urbain de Diamniadio loolu yëpp ñu ne Bargny waaw dinañ def enquête parlementaire pour xool mais. Euh, lan moo tax ñu bàyyi sim rek moom rek mu ne day denc euh, ñeenti téeméeri hectares yu teg ngir fii ak euh, ay téeméeri at bu soxlawee maanaam ciment mu dem poofu fekk na jamono jooju ah suñu yaay yi am nañ jafe-jafe suuf fekk jafe-jafe yooyu askanu Bargny am na jafe-jafe suuf fekk ja fekk jamono jooju askanu Bargny am na jafe-jafe suuf pour tabax kër donc loolu wax dëgg yàlla dinañ ko xoolaat dinañ ko seetaat dinañ ko settantal euh, ci question écrite bi euh, bu doyulee ñu def commission d'enquête parlementaire pour xool loolu yëpp naka la mënee am pour xool kan moo autorisé centrale à charbon bi mu taxaw fii ci digg askan wi ndaxte centrale à charbon euh, usine la boo xam ne li muy génn ci saxaar baaxul warul nekk ci digg askan wi warul nekk ci digg femme transformatrice warul nekk ci digg ay école warul nekk ci digg ay yoon warul nekk ci foo xam ne place bi dafa war am na pàcc boo xam ne pour ay kër la woon pour ñi nga xam ne géej gi dafa lekk seen kër benn pàcc bi euh, fii la ñu waroon ñëw lan moo tax ñu jël lotissement yooyu jox ko centrale à charbon jox ko ñeneen ak ñeneen donc loolu yëpp incha allah lu war a seet la lu ñu war a seetantal bu laajee def commission d'enquête parlementaire incha allah dinañ ko déposer assemblée nationale. bu weesoo yi la jafe-jafe femme transformatrice yi nekkee fii ci diwaanu Xelkom bari ñi di jànkuwanteel ñii di defarkatu gaale itam ñu ngay dund lu méttee métti ñu leen di woowee ay charpentier li ko waral mooy usine yi nga xamante ne ñooy xel di defar ak itam jaay bant yi ñuy faral di liggéeyee yooyu yëpp ñu jàpp tëj leen tax ba jamono ji ñoom ñile nekk ci ab guddi gu bët setagul dafa am bant yoo xam ne moom lañ doon liggéey ñu koy jënd bant bi ñu koy jënd le bois ak benn usine bu ñuy wax Essowa bois ak benn usine bu ñuy wax Siba ak Forestière usines yooyu newoon fi doon ñu jaay bois ak pakk làmbaay usines yooyu dañ leen doon dañ leen tëj te usines yooyu lu mu bon bon créé woon nañu ay ñoo yu du liggéey di yóbbu seen i kër léegi bois boobu nag bi ñu jëlee usines yi teg leen ay taxes usines yi fayit léegi bois boobu ñu doon amoon amatuñu ko te dañoo amoon ay chantier naval chantier yooyu fa la ñu doon toog di former ay xale ñuy liggéey am di yóbbu di yóbbu seen seen seen parents yi ñu koy dundee ñu leen di fayal ndox di fay courant di leen ñuy joxe ay ay di jënd ceeb ak diwlin ñu koy dundee mais loolu bu demee ba usines yooyu tëj. léegi dañu dem fu mel ni Casamance di fa jënd banta wala dem fu mel ni Gambie ñu tëj suñu chantier naval dem foofu di liggéey. donte yenn saay ñu am fu ñu suturloo ba tey jilee seen dundin dara soppeeku ko ci. nit ki moo lay soxla yóbbu la foofu mais da nga fay nekk ay conditions yu difficile yi saa ñu ne am nañu am nañu bant yu pare nga dem fekk na dix bant la ñu am yow nga nekk per de famille nga toog fa presque deux mois. yoo xam ne yow li nga liggéey ñi nga jotoon a liggéey yëpp daanaka si zéro ñu dem ba bant ñu ne ñu ne kii yooyu dañu leen di tëj la ñu leen di defal surveillance dëkk yooyu fi ne dañu leen defal surveillance Gambie fi ne dafa am surveillance Casamance seen àll dafa am surveillance banta bu ñu fa dagg léegi dañu lay jàpp mooy ñun actuellement ñu ngi toog ñun en tant que charpentier ñu waroon liggéey liggéeyuñu lii ñuy dund ñoom defarkatu gaal yi tax ba ñu bari ci seeni doom daw wutali mbëkk mi ngir wut lu ñu am ndax fii tey metti na ba fu metti yam ñàkk yaakaar bokk na ci li dooleel mbëkk mi ñi nga xamante ne ñooy woon suñuy doom ak ñi nga xamante ne mooy mool yi xamante ne gis nañ ne gaal yi amuñu ay permis de pêche bant manqué na ñu ne bu ñu naree toog di xaar état bi te mënuñu génn si guuta booy mujjee boo yenee mujjee forcé daw dem mbëkk ji parce que mënuñu toog di seetaan seen parents ñuy souffrir yow sa papa nga war ko jox mu lekk war ko jox mu naan war a fay ndox war a fay courant yow yaa ko war a def yow yow loolu defaloo ko gor-gor rek la mën a doon. booy mujjee obligé wu bi ñuy dugg si gaal tàgguñu seen parents yi mais ñun ñi xamante ne dañ doon dem géej man Serpentine en même temps damay dem géej ñun fi ñu yegg si géej ñu nangu bàyyi suñu doom ñuy dugg si géej géej ku ko xamul rek moo siy dugg fi ñuy dem di fa wuti jën. non kuñ ne sa doom day dem Espagne ku sa doom tàggu doo ko bàyyi mu dem parce que ñun xam nañu dund nañu jafe-jafe géej bon donc kenn du nangu bàyyi sa doom mu naan day mbëkk ji. leneen loo xamante ne itam dafa jural jëye ñii di nappkat yi fii ci diwaanu Bargny mooy gaal yi nga xamante ne dañ koo defaree ay verre te nguur gu weesu gi bëgg a jël ko ak gaalu loo yi maanaam gaalu bant yi muy xeetu gaal yi nga xamante ne mën naa dund lu yàgg a yàgg moo tax ba ñii tey di ay charpentier di am tiitaange ci seen ëllëg ndax bu boobaa ñoom ñi lee dootuñu liggéey benn yoon. mooy gàll fibre de verre yi ñu fi bëgg implanté loolu arrangé wul charpentier yi bu dul dara Sénégal war ñu moon am suñu moolee moomeelu bopp te gàll yi suñu moomeelu bopp la xamul tax mu nekk suñu moomeelu bopp parce que dañ ne Sénégal dañ ko bañ de Sénégal xam nga gàll gàll la ñu wax gàll waaw ñun yàlla dimbal ñu tàggat ñu suñu maam yi ak suñu bàyyi tàggat ñu bu ñu mën a liggéey bant mu doon gaal suñu dëkk tudd tudd Sénégal suñu dëkk tudd Sénégal mu nekk gaal am na loo xamante ni tubaab waruñu ko andeel tubaab bi bu andee yëfam ñun dañu war a andi suñu yëf tubaab bi bu àndee yëfam ñun dañu war a andi suñu yëf waruñu ñu nangu yëfi tubaab bi jël suñu yëf tuur yi parce que soom jàmbur mën a tax tuur sa buy soom jàmbur walla mën a tax nun nu tuur nu buy bon nu buy bi nu am nag dañu ko a macc bàyyi soom tubaab bi fële ñun Afrique loolu mooy suñu problème lu ñu tubaab bi andil rek ñun dañ ko war a nangu pourquoi pas ñun mënuñu am suñu yëfi bopp. mooy usines yi fi nekkoon te doon dagg doon indi bois te bois bi ñu koy jëlee Côte d'Ivoire Libéria Gabon ak euh, Cameroun pourquoi pas mënuñu dem dëkk yooyu pourtant bant yaa ngi fi ñoom defaruñu ay gaal lu ñu defar ay armoire armoire mënul mënul mënul mënul mënul mënul mënul kii dara si si dëkk si si si environnement bu ko defee loolu ba usines yooyu bu ñu leen dellusee lu mu bon bon bon doon dina am ay nit ñu fay dem di fa liggéey parce que moo mool yi créé nañu emploi de mool dañu créé emploi moo la gaal goo gis nii gaal yi ngay gis nii gaal gu nekk dina yóbbu quatre-vingts personnes géej gaal gu nekk dina yóbbu quatre-vingts personnes géej bon kooku teggil na coono état mais li problème bi mooy que ne seen géej dañ leen ko sàmmalul ba tax na ñu jël bato dugal leen si géej gi bato di jël produit bi di ko yóbbu. dañ doon napp fii 2 kilomètres 3 kilomètres ba ba 15 kilomètres mais léegi pour nga napp dangay ngay dem 100 kilomètres te doo gis jën doo gis dara. loolu nag mën loo toog nag nga war a dund géej yaakaar géej nga toog gisuloo dara ku deful ku ku ku gisul ku gisul ku gisul li la gënal mais dangay dem si li fi sës loolu moo waral nag booy yëpp boo dem loolu moo waral ñëpp dem. mais nag pexe amul am nañu yaakaar nag gouvernement bu bees bi ñëw li nga xam ne moom la ñu tawat a ah, yan yàlla def ñu dégg ñu rek te buñ ñu déggee aussi ñu jàppale ñu loolu lañuy ñuy loolu la ñuy suweete yaakaar daal di juddu fi ci diwaanu Bargny askan wi di xaar nguur gu bees gi def ci liggéey bu mucc ayib Guy Mario Sagna fas yéene yóbbu bataaxalu askan wi. loolu yëpp incha allah euh, dégg nañ ko fi dégg nañ itam euh, li nga xam ne moom mooy tawatu nappkat yi ak gaal bi nga xam ne euh, jóge na fi ay ay bés ay weer ngi te mu yeboon lu mot gën saa téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent doomu aadama boobu ak léegi kenn xamul fu mu nekk ñu namb nag état du Sénégal yëngu pour xool. Euh, fan la suñu doom yooyu euh, nekk ngir ñu ñëwaat fi nga xam ne mooy euh, seen wetu yaay seen wetu baay seen wetu mbokk donc dinañ fexe daal itam ba napp gi li nga xam ne moom moo ko màndargaal muy jën amatul ñu fexe ba saafara ko ndaxte kat balaa nga laax jaay seen cër ay bateau doxandem ah nga laax jox sa askan mu lekk say nappkat ñu lekk ñu napp jën yooyu ñu suturli si Euh, Sénégalais yi jot ci jën yi suñu yaay yi nga xam ne ñoom lañ fi seet si muy femme transformatrice yi euh, jën bi ñu def ko keccax géej yéet ak ñoom seen euh, incha allah taxawaay boobu daal dinañ ko am assemblée nationale jaarale ko ci man député dina am taxawaayam dinañ ànd ak ñoom. ba keroog euh, centrale à charbon bi euh, ñu lëttuñu mbaa ñu firiñu euh, buñ ñu ko mënee démonter itam niñ ko démonter woon feneen indi ko fii ñu démonter ko ndaxte warul nekk ci ëllëguwaay. Bargny ci commune mixte bu Thiès la ko boole woon ci atub 1933 laata Sénégal di moom boppam. ñetti at ca gannaaw ñu taf ko ci Tëngéej laata muy doon ab commune boppam ci atub 1990 ci askan wi fi yeewoo téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ya ak ñaar ay lebu lañu ñi ëpp ci ñoom ci napp gi lañu yëngu jamono le ay industrie polluante moo nekk di gàllankoor seenub dundin tax ba jamono ji ñu nekk ci guddi gu metti lool